الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم mbokk jullit yi ñu ngi dénk sunu bopp di leen dénk topp yàlla ak ragal ko ci def ay ndigleem ak bàyyi ay tereem ndax loolu rek moo mën a muccal nit fii ci àddina waaye mooy tax mu mën a mucc mën a rëcc fërekël ak àllaaxira noo ngi tey ci suñu juróom ñeenteelu jataayi xutba ci addaawatu ila tawxid al xaalis woo sunu bopp woo sunuy bokk ci ndigleem suñu borom boo xam ni lu waay sàggan sàggan foofa moom waroo faa sàggan ndax yàlla moom def na déclaration bu yàgg ni gépp càggante gu nit ki def amaan na suñu borom mën na ko koo jéggal ndax inna allaha yaxfiru dunuba jamia waaye nag lu jëm ci wéetal suñu borom moom gépp càggante gu ci nit def na ko wóor ni suñu borom du ko baal ndax inna allaha la yaxfiru an yushraka bi jàpp naa ni liñ lay baal ak liñ la dul baal waru leen a yemale li nga xam ne boo dikkee ba laaxira kat benn négociation mënoo ko caa def ba jàll lu dul wérale rek doog a jàll loolu ku dim borom xel war nga caa sonn fii ci àddina balaa nga wuyu suñu borom ndax yawma la yanfau maalun wala banuun illa man ata allah bi qalbin salim kay jëriñu fa suñu borom mooy ki nga xam ne xolam set na wicc comme na Ibrahima meloon id jaa rabbahu bi qalbin salim ginnaaw bu ñu leeralee laa ilaha illa allah ak i chartam leeral muhammadun rasulullah ak i chartam tey nag ñu ngi wax ni laa ilaha illa allah kat dafa am caabi la ju am ay bëñ juróom-ñaari bëñam yooyu bu ca manqué sa buntu àjjana yëga ni du tijjeeku waaye nag dafa am lu yàq laa ilaha illa allah mboolem xeeti entreprise yi ne ci àddina bi suñu defaree benn mbir ba noppi dañ cay teg ni ah nangam ji kat day yàq lii te dañ leen koy nangul bâtiment bi ki ko tabax ba noppi dana ah ndox mi kat buy wadd ci kawam bu yàggee day yàq bâtiment bi te dañ ko koy nangul marchandise mi ma defal ba àmbalee ko kat ab sàngam bu jotee day yàq ñu nangul ko ko waa xoolal yi waa àddina ñoom lépp luñ ñu wax ne nangam ji boo ko defee sama yëf yi yàqu rek ñu nangul la ko waaye nag suñu borom moom yi mu wax ni yii kat ku ko def day yàq sa nangam yooyu jàpp na ne ëpp naa sax gën a ndax bu dee wax ju wér joojaa gën a wér jépp mbokk jullit yi ñu xam ni bokkaale yàlla subhanahu wa taala mooy posan bi gën a rëy bi gën a gaaw ci yàq sa laa ilaha illa allah te amaan na sax doo ko yëg mbokk jullit li gën a daw yaram te gën a metti da ngay gis jàmbaar joo xam ne ni mu farloo ci julli ni mu farloo ci ay jaamu yàlla ni mu farloo ci sellal ni mu fonkee lekk lu lew ak di moytandiku lu xaram làmmiñam ñi dëkk ak moom kenn mësu koo dégg mu wax mu waxi waxi njaaxum waxi toj penc waaye mi ngi def ci ay bokkaale yàlla loo xam ne yàq na laa ilaha illallah bu yàgg yàgg yàgg te fekk yëgu ko moo tax yàlla ni wama aktharu nnaasi ah walaw xarasta bi muminin saye boo nga xam ne nit ñi boo leen nattoon genn wàll yépp gëmun yàlla gëmun yàlla de danoo wax ni gëm nañ ko waaye gëmunu ko ndax fekk na yàq nañ seeni jaamu yàlla bu yàgg te yëgunu ko moo tax suñu borom ni moytu leen yëf yoo xam ne an taxbata amalakum wa antum la tashurun seeni jaamu yàlla day yàq te du ngeen ko yëg wax dëgg yàlla jàmbaar ji nga xam ne côté yépp boo ko ci nattee gis nga ni góorgóorlu na fa foog naa ni tomb bii nga xamante nii moo gën a sensible ci tomb yépp war na ko bañ a sàggane bokkaale yàlla mbokk jullit yi posan bi gën a rëy ci yàq sa laa ilaha illa allah mooy bokkaale yàlla bokkaale yàlla bu ñu ko doon définir ci baat yu gàtt dañuy wax ni mooy doomu aadama bi di nirle yàlla akum mbindeef képp ku dut suñ boroom rek yëgal ni kooku mbindeef la ak martaba ju mën a yore mbindeef la ndax dana jaadu wala mu rafet wala xel di nangu ku toll ni suñu borom ak ni mu màggee ak li mu def ak ni mu fi jiitoo ñëpp ak xutba yi paase li ngeen ci gis ci xeeti kàttan goo xam ne suñu borom dong ko am ndax dina jaadu mbaa mooy rafet nga jël suñu borom di ko dendaleeg di ko nurle ak ak leneen loola jàpp naa ne ku am jom ci am tuuti gàcce sax war nga koo bañ ndax sam xel war naa bañ loolu war naa xam ne loolu jekkut jaaduwut ndax suñu borom du moromante kenn wala boog ak jaamu yàlla goo xam ne suñu borom lañ ko waroon a defal nit dem di ko defal nit xam ngeen lu mel ni ñaan suñu borom lañ war a ñaan ci moom lañ war a xitiliku ci moom lañ wuslu moom lañ yaakaar moom la ñuy dimbandikoo moom la ñuy niséral yooyu yépp ay xeeti jàpp ak yeneen yu bari sunu borom lañ ko war a defal te tey ñu bari ci ay doomu aadama ñi ngi koy def te fekk buñ ko waxee ak buñ ko waxut ña ngi koy defal keneen ku du sunu borom moo xam ka nga koy defal am malaaka la gis nga fañ tàmbalee nam kawee de ab malaaka lu mu foor foor ab yonent topp ca lu mu foor foor nit ku baax wali yi sunu borom borom xam-xam ak kum mën a doon kooku sañoo nga de ko dekkal defal ndax bañ tàmbalee ca malaaka rek ku ko féete suuf ku nekk yóbbaale nañ la wala boog mu nekk ab nit ak loo ko fonk fonk aw doj ci ñi nga xam ne ñoom amuñu xel ndax am na ñoo xamante ni ay bant la ñuy jaamu xam ngeen am na ñuy bant jaamu ay bant am ñuy jaamu garab am ñuy jaamu weer am ñuy jaamu jant am ñuy jaamu ay xërëm am ñoo xam ne sax ay nag la ñuy jaamu xam ngeen fii ci réew mu ñuy wax Inde boo fa demoon tey jii daanaka wéetal yàlla ni mu mel fii wéetal wéetal xërëm noonu la wéetal aw nag noonu la mel foofu kon kenn ku nekk ak la muy jaamu ak kenn ku ci nekk ka muy dendaleeg suñu borom yàlla subhanahu wa taala waaye dafa jaaduwut dafa rafetut fi suñu borom jaar ak yow bind la te joxe woo dara jekk-jekkal la te fayoo dara defal la lépp te joxe woo dara ah saxara lakum ma fi l ard jamian tàggatal leen mboolem la ci kaw suuf huwa alladi xalaqa lakum ma fi samaat ma fi l ard li ci asamaan ak suuf sunu borom moo leen ko defal ah moo leen sàmm ci jéeri ji ak jaww ji laqad karramna bani aadama wa xamalnaahum fi lbarri walbaxri wa razaqnaahum min altayibaati wa faddalnaahum ala kathirin mimman xalaqna tafdila lii lépp mbokk juri day xeeti xéewal sunu borom defal la ko foog naa ni doomu aadama jëflanteem digganteem ak moroomam rek léeg-léeg di nga séq ak nit dinaa koy joxe misaal lu bari waa ji nga xamante ni dafa am benn waay bu ubbi ab société jël ko ni ko kaay di ma liggéeyal jox ko poste bu baax di ko fay ab salaire bu xewlee bu ngéntee mu dimbali ko bu ceetalee mu dimbali ko su feebaree mu jàppale ko léeg-léeg sax bu xew-xew mag amee mu daal di ko cay dimbali jàpp naa ne patron boobu da nga koy fonk lool fu ñuy waxee ay waxam nga jóg toojal ko te it doo bëgg lenn lu ko naqari la muy bëgg da nga koy bëgg la muy bañ da nga koy bañ da ngaa fàtte ni patron boobu yàlla moo ko gën a foor di ndax yàlla moom moo la moom patron boobu ci xéewali yàlla yi la bokk ndax yàlla mi la tàggat ba nga judd am na ñu judduwut yàlla mi la tàggat ba nga jàng am na ñu jàngut ni yow yàlla mi nga tàggat ba nga jàng ba ami diplôme am na ñoo jàngaloon te amuñu diplôme yàlla mi la tàggat ba nga ami diplôme am liggéey am na ñoo amaloon ay diplôme te amuñu liggéey yàlla mi la tàggat ba wutal la patron bu baax boobu am na ñu ci gën a yey te amuñu ko kon patron boobu ci xéewali yàlla yi nga koy limaale kon loo ko nangul rek daa war a fekk junneem nga nangul suñu borom ba noppi kon mbokk jullit yi bu wéetal yàlla subhanahu wa taala bañ koo bokkaaleeg dara loolu moom moo gën a ëpp solo ci liy sàmm laa ilaha illallah mbokk jullit yi nañ ànd ñun en tant que ay jullit ñu def seetantal ci téereb yàlla bii nga xam ne ñoo ko bokk muy alquran moom nga xam ne moom duñ ko wax ñu ni waxi kenn la ñuy nettali waxi suñu borom ñun ñëpp a ci bokk yam mbokk jullit yi xam ngeen am na ab yonent ñenn ñi ni yonent la ñenn ñi du yonent ak wuute am na ci borom xam-xam yi donte wax ji gën a dëgër mooy du yonent muy luqmaan luqmaan suñu borom tuddee na ko aw saar luqmaan kéemaanu suñu borom la woon ndax làmmiñ wi li ci doon génn ci lu mën a jariñ doomu aadama jëmmam ji ak dundam gi ni mu barkeele woon kéemtaanu suñu borom la loola xëy na insha allah ci barab bi ci xutba yi wala ci darsu yi dees na mës a indi lu jëm ci njàngale yu am solo yooyu mbokk juri luqmaan ci boppam yàlla da ko wërsëgal doom mu di ko yar waaye luqmaan mi ngi ñuy jàngalaale kuy yar xale noo ko war a yaree ah ba ma déggat nga saaga rek est ce que foofu la ñu war a tàmbalee déedéet tuuga waay ba ma gisaat la nga génn fii solo tubay est ce que loolu la ñu war a tàmbalee yar déedéet gis nga kon boo seetloo ñun yi ni tàmbalee yar ndeket du yooyu de yow ba ma déggat la nga wax lu dul dëgg rek déedéet yar kenn tàmbalee foofu gis nga li gën a yéeme mooy mbir moo tàmbalee foo ko war ta tàmbalee rek ndam la nga ca bëgg doo ko am luqmaan ba muy yar xale ba dafa tàmbalee ci wane ni bàyyi bokkaale yàlla ci lañ war a tàmbalee ab yar ak xale bu lu mu tuuti tuuti ci loolu lañ war a tàmbalee foofu mbokk jullit yi damay wax benn baat boo xam ne boo ko waxee ñun ñëpp dinañ ci bàyyi xel mooy gis nga ñu bari ñu ngi ci naka su dut noonu wallaay bonuñu déedéet bonuñu de maanaam gis nga nit li mu judd ñu tàggat ko ci mu màgg ci yaru ci loolu dindi ko ca du yomb yàlla rek moo la mën a dimbali lu bare bari loo xam nit nit kaa ngi koy def te li gën a yéeme sax nag loolu lépp li leen gën a yéeme mooy da ngay gis koo xam ne da ngay waxtaan ak moom mu xamal la ni la moom xam na ni sax li muy def du noonu moom xam na ko waaye fi ne problème mooy lu ko teree bàyyi ba tey gis nga tàmm ak laago day dem ba yóbbee nit ki loo xam ne xëy na du gurëy waaye da koy xaw a nuru ndax dem nga ba xam ne du nii léegi lu tax bàyyi woo nga def nam doon loolu lu doy waar la mbokk julit yi moo tax gone boo ko amee di ko yar da nga koy tàmbale ca yarukaay ba yarukaay bi mooy gone dañ koy wax ci teel ca ba muy jàng wax ñu xamal ko luy bokkaale yàlla xam ngeen ni borom xam-xam yépp yi nga xam ne ñooy borom xam-xam yi lislaam yu wér yi dëppoo nañ ci ni yàlla moom mi ngi ci asamaan leneen wa leneen lu la waay wax lu dut loolu loolu wérut baaxut a amintum man fi samaai an yaxsifa bikum al ard ah هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا ثم استوى الى السماء فلن من ثم استوى الى السماء وهي دخان ها اك ينين اي بري جام با ديك يونس صلى الله عليه وسلم خم mu ne ko waaw ya man maay kan mu ne ko yow yaay muhammad sallallahu alaihi wasallam mu ne ko ana yàlla mu ne ko yàlla ngi ci kaw asamaan mu ne sangam kii goreel ko kii gëm na yàlla fekk sang ba da koo tooñoon ay tegtal yu bare bare bare ci alquran ak hadith am nañ ko ci yàlla nga ca kaw benn borom xam-xam nee na sa doom su demee ba man toll ci mën a wax di xam ay soxlaam jox ma kaas bi jox ma pop pot bi jox ma nangam te boo nee ko ana yàlla xamul fu yàlla nekk nee na yow doo yar kat yow mënoo yar ndax loolu dañ ci war a teel a yar xale nekkete xale bi yooyu nga koy wax dëgg la dimension bi ñuy waxee ak mag kenn du ko waxee ak gone ndax gone it xelam gone lay yore waaye nag fexeel ba mu xam ni bokkaale yàlla kenn du ko def fii nag mbokk julit yi luqmaan dafa jëfandikoo qaayida bi arabi nan dara ul mafasid borom xam-xam yi qaayida biñ naan règle biñ naan dar ul mafasidi muqaddamun ala jalbil masalih balaa ngay xëcc ay njariñ da ngay dàq lor ba pare foog naa baykat yi ñoo ma gën a xam loolu xam nga ni moos sa mbayam daaw ba sa dugub ji nga xam ne xappagoo ko mbaa mbaa mbaa geer yi nga xam ne gajjagoo ko mbaa dégg yi nga xam ne lukkatagoo ko doo ñëw jékki-jékki rek mu taw ab bàq rek nga daal dem jël sa machine rek ñëw di ji ci kawam foog naa ne baykat yi gën nañoo yeewu noonu ah su nawet jubsee nu ñuy def dañuy def li ñu tuddee ruuj ruuj mooy dem gajji ngeer ya ah dajale dég ya lu kat ñax ma jekki-jekkal ba mu seet boo amee fii nga daan di fay suy loolu mooy lan loolu mooy lan mooy dàq ay lor dara ul ma faasi boo dàqee lor ya pare doog andi njariñ boo jiyee mu sax yaakaar naa ni bâtiment yi it benn waay du ñëw fekk bâtiment boo xam dafa gàll guuse fee kawe fee gàtt sampul ay bant deful deful deful daajul ab sees deful dara ñëw rek commencé yëkkati foog naa ne maçon yi gën nañoo muus noonu waaw man li ma jaaxal mooy sunu mbiru àddina daal toujours lam lam laaj moom lépp lañ koy jox waaye sunu mbirum diine bu yegsee ñu commencé banjal ak a dagg dangal ak a dellu gannaaw loola seytaane moo ñu koy def kon luqmaan dafa fexe lay yàq say jëf mu fexe la caa wax ba pare doog laa dimbali nag ci mbir yi nga xamante nii boo ko defee kat sunu borom subhanahu wa taala gërëm la ca sunu borom mi ngi wax ni wa id qaala luqmaanu libnihi wa huwa yaizu yaa ngi fàttaliku ba luqmaan waxee doom ja fekk da koy waar di waar kon xale bi war ngay waxtaan di ko waar ah gis nga diw mi nga déggoon ni nekk na fi nekkatu fi léegi dafa dee dee mooy dafa am lu nekk ci jëmmi doomu aadama lu ñuy tuddee ruu ruu mooy tax ngay dund ngay noyyi kooku bu ko malaaka mi jëlee nit ki day yéen jàpp ko suul buñ ko suulee dem na alaxira bu demee alaxira nag yàlla la fay fekki yamal foofu amul détail bu bul dugg ci yeneen détail yooyu nga di ko xamal xale bi boo yaakaar ne xale bi xamu ko xale bi xam na lu ko raw ndax gone yi seen xel yi léegi dafa dafay teel a ubbeeku lool mu ni ko yàbbu na yow sama doom la tushrik billah ay waay nga la waay bul bokkaale yàlla inna shirka bokkaale da la zulmun azim tooñ gu rëy rëy rëy la bal mooy tooñ gi gën a rëy ci tooñ yi loo dégg ñu ne la ak tooñ la rek yëgal ni bokkaale yàlla moo ko gën a rëy te foog naa ni mbokk jullit yi kenn ci ñun yéenewul boppam waxuma la ak mbokkam di sonn ci ay jaamu yàlla yu bari fekk yàqu na mi ngi mel ni rek natt kaasab soow ba noppi daal jël ay toqi deret def ca ah mi ngi mel ni rek nit ki jël kaasab soow sotti ca bineegar wala yu mel noonu loolu da koy yàq moo tax yàlla mu ne an tahbata amaalakum seeni jëf day yàq wa antum la tashurun mbokk jullit yi aaya jii day leçon bu rëy mu ngi ci ñeel bépp yarkat ab ustaas nga buy jàngale ab borom xam-xam nga buy waaraate imaam nga buy tafsir alquran ak koo mën a doon yëgal ni yar bokk na ci la gën a gaaw ca la ñuy tàmbalee mooy defar pas-pasu nit ki gis nga nit ki boo fàqee bi yar dóor ko li ma la waxoon boo ko defatee bu ma génnee xale bi soo génnee dem ndakaaru day xam ne yow nekkoo fi tey comme nekkoo fi tey nag mën na maa def li ma bëgg a def waaye kat boo ko yaree ci alam yaalam bi anna allaha yara xanaa xamoon yàlla mi ngi lay gis alam yaalamu an allah yaalamu sirrakum wa najwaakum wa anna allah allaamu alxuyub xanaa xamoon ne yàlla li nëbb ak li feeñ lépp gis na ko te moom mooy ki xam li fàddu ah wa asirru qawlakum aw ijharu bihi innahu alim bi zaati sudur waxal ca kaw waxal ci suufa ci bokk yam yàlla xam na li ci dënn yi xale bi xam ni kat kon ngóor sii wala sa sama njaatige lii wala sama sëriñ lii bu demee ndakaaru it nag yàllaa ngi fi des moo tax ndaw sa ba mu omar ibn alxataab ba mu rombee ca tàppaatu dëkk ba ca ginnaaw sàkket ya ci heure fajar mu dégg maire bi naan e gaawal gaawal gaaw gaaw gaaw nga jël ndox mi nga njar ko ci soow mi gaaw balaa balaa fajar a jot ñu mën a jaayi soow mi xale bi ni ko yaay booy xanaa yëgoo ne Omar ibn al-Khattab day tere loolu loolu yonente bi saa salaam da koo tere loolu mooy riche mooy wor nu ko cëppri soof ba bëgg a dee yow juddoo goo barki dee moo njaay man nga fee xam lu ma xamul nga ne ma Omar ibn al-Khattab Omar daa daa nekk defal li ma la sant xale bi ni ko yaay Omar bu nekkul fii gisuñu yàllay Omar mi ngi ñuy gis gis nga Omar ibn al-Khattab dafa dégg loolu rek tànk yi jaxasoo mu ni dellu ci suuf wadd ndax xam na ni kii wax nii baat bi ma dégg xam nga ne bu xale di wax ci ginnaaw ku ko dégg di nga xam ni kii xale la mu xam ni kii gone gu jigéen la Omar daal di wax ki mu àndal ni ko buntu kër gi xàmmee nga ko mu ne ko waaw mu ne ko nañ ñibbi ba suba ca suba sa mu yónni ko ni ko demal xoolal ma ku ne ca kër ga mu dem xool fekk yaaya fa nekk ak doom bi jigéen ak ñeneen ak ñeneen mu ne ko gone ga mat naa sëy mu ne ko waaw ab jànq la de am na borom kër ñu ne ko déedéet Omar ibnul Xataab woo ay doomam ni leen seen bàyyi da démb ci guddi gis na gone gu jigéen goo xam ni su amoon xememteef moom seen bàyyi ci takk soxna dana ko takk waaye nag fi ne takkatuma soxna yéen ñii samay doom nag ku ci bëgg ndaw soosa wóor na ma ni ku ragal yàlla la ma may ko ko gis nga mag ñi ni ñu doon tànnee soxna boo gisee ñun ndaw ñi léegi ñuy daanu bun jël bu rëy ci bun takk soxna bu jëkkoon sa bàyyi dana la demal sa kër bàjjen diw sa kër maam diw sa kër nangam diw wala boog demal ci kër diw ah diw de moom soxnaam saykat la diw de moom nangam diw de yar nag njabootam léegi nag dox daje la ak kenn ku ci nekk wër ba gis la nga dëppool rek nga daal di ànd ak moom su ko defee li li Maxtaar Seck Mor naan mu të ay bokkam nga tës ay bokkam ngeen daje su ko defee la naqari ci moom rek muñ ko. Aasim doomi Omar ibn al-Khattab la moo ni Omar bàyyi man de bëgg naa soxna mu ne ko bismillah nañ dem ñu ànd ñu may ko ndaw soo sax gis nga ndaw sa jëfam ju rëy jooju gis nga tànn gi ko Omar tànnal doomam gis nga ndaw sa ragal gam ragal yàlla di ko séentu waral na lu lu kéemaane la jur. Omar ibn Abdul Aziz mi ngeen di dégg nga xam ne boo nee Aboubacar ni Omar ni Ousmane ni Ali kon ñeenti xalifa yi ngay wax dañ naan cinquième position bi Omar ibn Abdul Aziz la ndax moom rek lañ gis ni ak jiiteem moom daa niroog ñee ba mënees na mënees na ko caa sës. ndaw soosa moo jur ab xale bu jigéen xale bu jigéen ba màgg moo jur Omar ibn Abdul Aziz moo tax borom xam-xam ni gis ngeen tànn ga tànn ga nii lay rogalaate de ndax al irqu dassaas sidit gu baax. te gis mag ñi dañ daan tànn sidit ku baax ngir am ca doom yu baax foog naan sun mbiru àdduna comme ni ma koy joxee misaal rek defe naan doo bëgg a aw jiw nga dem ba ca marché ba jënd saako buuse indi bu soobee yàlla boo jiyee dara du sax yaakaar naan du xeetu kemb gu ne sax ngay jënd da ngay ñëw xool kemb gi xool kemb gee xool kemb gële gis ni gii kat moo gën a fere moo gën a baax nga jënd ko ngir saw jiw baax kon defe naa bu ne sun mbiru àdduna mel noonu sun mbirum nite moom taxul di wax mbokk jullit yi bokkaale yàlla sunu borom dafa bëgg bu ñuy yar gone yi ñu tàmbali leen yar ci loolu maanaam xale bi gëmloo ko yàlla subhanahu wa taala maa ngi fàttaliku fële ci suñu daara ja benn bis damaa ñëw ñu netti li ma ne ma dafa am genn gone goo xam ne kenn da koo bett mu sàngu mu jël benn mbalaan sàngoo ko di jooy jooy yu metti gone gu tuuti oustaz bi laaj ko nangu la wax biñ ko enquêté mu ni dañ leen doon waar démb di leen wax ci mbirum bëggalum bàmmeel léegi moom da doon xalaat mbugalum bàmmeel mu ni moom bu duggee bàmmeel mbaa kon duñ ko mbugal kon mu ni loolu la doon jooy xale boo xamante ni yow daanaka fukki atam su ma tee ca la yam ah loolu bu fekkee da nga yaakaar ne kon gone yi boo leen dee yar ngay tëb yooyu def nga musiba beneen bi ci des mooy gone yi ci seen jëmmi bopp dimension bi ngay foog ni ñoom àggun fa àgg gañ fa àgg mooy waral léeg-léeg ñu trompé la te doo ko yëg te doo ko yëg de léeg-léeg nga gis gone gu ndaw gu way juróom faatu muy julli di ko ñaanal am na ko ma nettali ci way juru xale yi nee na doom ji bu lekk jotee day wax yàlla na yàlla mooy wërsëgal sama way jur wafaatu ci ñami àjjana ya maanaam yow dañ lay wax ci gone yi loo xam ne da nga yaakaar lii gone yi xamuñu ko fekk xam nañ ñu ko ëpp de moo tax booy yar fexeel ngay yar gone yi ci pas-pasab laa ilaha illallah ak yàlla kenn du ko bokkaale dara xale bi même boo fi nekkut day gëm ni contrôle bu mag bi muy sun borom mi ngi fi sunu borom mu ne inna allaha yàlla laa yaghfiru an yushraka bihi xawma lan moom waaye yàlla moom du jéggal ñu bokkaale ko te xam nga magum jëmm di kilifa bu nee la nangam du ma ko def moom sa yeboo nga yàq bañ a yàq sa sa sa énergie xam nga du ko def yàlla mu ne du ma jéggale mukk ku may bokkaale mbokk julit yi yàlla nee na du ma jéggale ku ma bokkaale mën a xool nga say jëf bokkaale amu ca wa yaxfiru ma duna dalika liman yasha luy lu dul bokkaale nag moom caay-caay gum mën a doon yàlla nee na mën naa koo jéggal ñama soob moo tax bu ngeen fàttalikoo ci xutba ji passé nee naa leen képp kuñ lañ bëti say jëf bokkaale yàlla amu ca biddaa amu ca bu yàlla yaa tabee nga taxaw ci roq ba te tëdd yaakaar yërmande yow moom yow moom na la wóor ni moom nga tàbbi àjjana gën a jege nga dugg safara ak loo yore ci ay njaaxum nag lu mu bari bari laa wax sa bàkkaar lu mu bari bari bari te bokkaale woo yàlla bu yeboo nga toog fële rek ngay xaar amaana yow bu soobee yàlla liste d'attente bi ñu teg ci pegg bi dinañ la boole ci ñañuy woo ndax yàlla mu ne lu dul moom rek mën naa koo jéggale te it même buñ la dugalee safara doo fa sax ndax ku amul bokkaale yàlla doo sax biir safara sunu borom mu ni wa man yushrik billahi faqad iftara ithman aziman ku bokkaale yàlla dugg nga ci loo xamul de li wala fi na dugg nga ci giraawaali sunu borom mu ni ku bokkaale yàlla dugg nga ci giraawaali goo xam ne fa mu jëm ak yow xamoo ko nee na wa man yushrik billahi faqad dalla dalalan baida ki ki ki bokkaale yàlla sunu borom mu ni daanu nga jël bu sore sore sore réer nga yow da ngaa sori sax da ngaa sànku fu sore sori xam ngeen ni réer jegeb dëkk gindeeku ca la gën a yombee réer sorib dëkk loolu mooy dalalan baida réer jegeb dëkk yaakaar naa ne ak lu mën a xew moom tabax yee may seen zeng yee may seen même bu dul fa ma jëm xaar ma dem fa laajte kooka dalal gi nekkul dalal baid waaye dem ba ca digg àll ba nga xam ne pour nga gis kuy romb sax jafe na yow boo fa réeree musiba moo tax mu ni dalalan baida yow sag réer sori na topp yow doo neex a gindi wa man yushrik billahi fa ka annama xarra min asama ci suratul hajj yàlla mu ne gis nga bokkaalekatu yàlla mi ngi mel ni ku yëkkati rek ba ca asamaan sa rek sànni ko yaakaar naa avion yi nga xam ne àgguñ ca asamaan sa rek ku ca daanoo woon jëm suuf moom musiba am na yàlla mu ne dañ lay xalab fa ka annama xarra min asama da ngaa xalabu jóge ci asamaan sa fa taxtafahu tayru picc yi ci tan yeeg daal di koy kal alawti ko lekk ko aw taxwi bi riixu fi makaani saxiiq wala ngelaw li daal di koy sànni ca ajag jag ja kooku kon xam ngeen ni jóge ca ab étage daanu ku ko dégg saw fit ni tuxit kon bu ñële ca kaw asamaan sa nga jóge daanu moom ngay bokkaale yàlla moom la suñu borom nirile yonent bi saa salaam ci xadisa Muaz benn bis yonent bi dafa jël Muaz waral ko ci kaw mbaam mi mu ne ko Muaz est ce que xam nga ni man yonent yàlla bi dama laa bëgg te loolu lu rëy la mbokk julliti ndax yonent bi ku mu bëgg yàlla bëgg na mu ne ko Muaz maa ngi lay dénk yàlla dafa am ay àq ci nit ñi nit ñi ami àq ci suñ borom àq yi nga xam ne nit ñi am nañ ko ci suñ borom mooy suñu borom moom képp ku ko bokkaale wut du la tàbbal sa war waaye àq yi nga xam ne ñun ñoo ko ameel suñ borom mooy dañ koy jaamu te duñ ko bokkaale dara loolu àq la bu ñu ameel yàlla nee naa la loo sàggan sàggan sàggan ñun ndeysaan pour wan la ne suñu nattukaay yi dafa dafa dafa desee jub da ngay gis koo xam ni ab tuxkatub cigarette wala wala wala kuy def yenn ci naka sa du noonu moom lay gën a bañ moom lay gën a sib sax ab bokkaalekatub yàlla parce que ñàkk a ràññee moo ko waral fekk yàlla xam na ni naan katub sàngara sax tane bokkaalekatu yàlla parce que naan sàngara bokk bàkkaar la nu mu tërati njaalo bàkkaar la yéen bokkaale yàlla dafa génn ci cadre bàkkaar parce que boo ko xësee def yow da ngay génn ci lislaam dañ lay puus nga génn ndax am na xeeti bokkaale yoo xamante ni soo ko xësee def sa laa ilaha illa allah moom yàqu jeneen caabi rek mi ngi mel ni juróom-ñaari caabi caabi ji ma wax dafa am juróom-ñaari bëñ nga jël martu bi teg caabi ci kaw dékk bi jël capp benn capp nga toj gis nga jooju caabi moom dama wuti jeneen caabi te benn point rek ci yàqu benn cat rek moo yàqu ci caabi ji ñun la util jeneen caabi kon fa kay fakka bu fekkoon da nga koo dóor ba caabi ji yépp noor mooy sa laa ilaha illallah moom yàqu na mbokk jullit yi borom xam-xam yi dañoo séddale bokkaale yàlla nag ñaari xaaj dañ ne dafa am bokkaale gu ndaw am bokkaale gu mag waaye man damay wax ni wax nañ dëgg wax nañ dëgg waaye bu ndaw baag bu mag a boo leen boole yépp a mag ndax xam ngeen ni yàlla dara ndawut di yàlla subhanahu wa ta'ala dara ndawut da ngay dégg ñu ne bàkkaar bu mag bàkkaar bu ndaw waaye yépp a mag parce que yàlla mi ngay tooñ la donte na suñu borom ku bëri jéggal la moom koy coow li coow li mooy boo yërëmtalu na fekk bul bokkaale yàlla subhanahu wa ta'ala gis nga doomu aadama lu mu saay saay saay saay su fekkee daawul bokkaale yàlla bu jéggalu suñu borom jéggal ko yonent baa ngi nettali benn waay boo xam ni reykatu nit la woon agresseur la di rey ay nit di rey nit di rey di rey ba rey quatre-vingt-dix-neuf personnes te yonent yàlla bi nee na benn nit dong ku ko rey fa jazaauhu jahannam sawar jahannam ngay dem benn nit wa man yaqtul mu'minan mutaammidan ku rey bakkanub jullit te fekk yaa ko tey fa jazaa'uhu jahannam sawar jahannam nga jëm waaw léegi ki rey benn bakkan te moo ko tey sawar jahannama la jëm waaw fa kay fa ka ki rey waaye moo ko tey da ci am solo nag parce que nit mën naa fiir fekk yorootu fi tey ko man ngay xàcc ne kay am ku ne sa gannaaw gis ko ak yu demee noonu nit ki mën naa rey te fekk sax yàlla xam ne jubloon rey ko rey ko tax ko woon a jóg xanaa yëf yaa mooy rek gis nga waa ji ñëw ci benn borom xam-xam dafa tiit dafa déglu waaraate waaraate gi dugg xol bi ndax boo gisee ñu bëgg nit ñi di waaraate parce que nit ñi am na ñoo seen xol baax ñoom boo leen di poussé rek ñuy dem mu ni dafa bëgg a tuub li li lay wan ni xam-xam lu baaxut waa ji njëkk a ñëw ci moom mu ne ko ah juróom-ñeent fukki bakkar juróom-ñeent te benn bakkan boo ko rey dem sawar kooku yàlla du la jéggal xam nga ku découragé rek gis nga ku découragé leneen day def ba def lu mu bëgg la def waa ji découragé daal di koy rey parce que tàmm na rey bakkan muy téeméer kooku moo ko yóbbee moom parce que yàlla dinaay faral di wax mbokk yi ma ñu leen diw naafeq la diw yéefar la diw jullit la diw dina tàbbi àjjana diw nekk ci dëgg diw nekkul ci dëgg yooyu buñ ci faral di dugg yooyu mbirum suñu borom loolu bu ci kenn di dugg de diw li nga nekk moo baax diw li mu nekk baaxul kii tàbbi àjjana kii du tàbbi àjjana kii dafa lii kii dafa lee classé mel ni àjjana dañ koy bëgg a séddale fii loolu moom mbirum suñu borom nañ ko bàyyi ak yàlla ku baax yaa baax ku saay saay yaa saay saay kuy waaraate waaraate la ku jëriñu jëriñu ku jëriñu jëriñu ku dee yaag sa bàmmeel bu yàlla yaata di woo kenn naa ko kaay loo ci xam ndax yàlla xam na lépp subhanahu wa taala waaja toogaat ba mu yàgg fitt gi tëbaat xol bi tëbaat mu jóg mu ne ñu mënatul nelaw faw moom mbir mii danañ ko jéggal mbaa mu seet nu mu def ñu tegtal ko benn borom xam-xam mu ñëw ci moom borom xam-xam bi ni ko man yaxuulu baynaka wa bayna tawba kan moo la mën a dox sa digganteeg tuub lu tee nga tuub yàlla mooy baale bàkkaar te faatoo ko mi ngi fi tuubal waaye daf ko jox orientation yu am solo gis nga doomu aadama léeg-léeg koñ bi mu yaroo yàgg faa defuk caay-caay su tuubee pour mu dundal fa day xaw a jafe mu ni ko génnal dëkk bi mënatoo nekk ci dëkk bi demal barab sàngam ay nit yu baax ña nga fa boo demee nga jaamu fa yàlla mottalee fa te nga bàyyi rey bakkan waa ji takk ay bagaasam ak dëbësam ak kaakaam bay génn dëkk bi mu ngi mel ne mu génn dëkk bi dem ba génn dëkk bi rek sori rek malaakal mawti ak si ni ko yow la yow laa jël si kat ha ay ay am na de tuuba guddi da doon tuubi de waaye yéene baa ngi fi bi malaaka mi jël ruu gi ay malaaka yu jóge sawara ñëw ay malaaka yu jóge àjjana ñëw ñu koy xëccoo ñi jóge sawara nee nañ kii saay saay la rey na téeméeri bakkan sawara la jëm ñi jóge àjjana nee nañ déedéet kii day dem àjjana parce que bëggoon naa tuub coow li ni kur suñu borom yabal beneen malaaka mu ñëw di leen àtte lu xew ñu ne ko nangam ak nangam mu ne nañ natt fi waa ji toog ak dëkkam fi waa ji toog ak fa mu jëm dëkkam mooy fa mu doon defee bàkkaar fa mu jëm mooy fa mu nar a tuubee ji fu mu gën a jege rek ñu jox ko àtte booba yonent yàlla bi nee na biñ koy def fekk na fa mu jëm moo gën a sori kon sawara la gën a jëm sunu borom daal ni suuf gaawal nga lemu nga wàññi espace bi ndax kii dama kaa bëgg a yërëm allahu akbar suuf si daal di lemu espace bi gën a wàññeeku ñu natt te xoolal li gën a yéeme mooy lu tol nii la ëpp lu tol nii fii ba fii kese la ëpp sunu borom ni dañ koy dugal àjjana yonent yàlla mu ne kooko tàbbi la àjjana moo tax day tux cigarette ak day naan sàngara ak day njaaloog dafa saay-saay ak am na doom judd na ko sa dug noonu lekk na yëfi jàmbur yeeg dugg na fii génn fa le ay njaaxum la de ko ko mën a bàyyi bàyyi ko waaye yooyu day bu fekkee nit ki boo xuttee ab dënnam léeg-léeg nga gis nit ku saay-saay waaye du bokkaale yàlla léeg-léeg nga gis nit ku saay-saay waaye du bokkaale yàlla léeg-léeg nga gis nit maam yàlla ni muy mayee da ngay gis gone goo xam ne man gis naa gone goo xam ni ni muy jubadee maara day taal waaye li ma gën a yéem ci moom mooy du fen lu mu def boo ne ko yaa ko def mu ne maa ko def ak njaaxum ko lu mu rëy rëy nag boo ne ko diw yaa def naa nga mu ne maa ko def du nëbbu dara xoolal yàlla wurusu ngalam yooyu muy may nit ci ngay xam ni kon sunu borom am na lu mu ci nam kon bul àtteel yàlla kenn yàlla àtteelewu la yow yow lijjantil sa bopp su ko defee mbokk jullit yi kon bokkaale yàlla am na bu mag am na bu ndaw waaye yépp a mag moo tax al imam al xaafis al xakam yi ci téeréem boobu ma tuddoon te incha allah téere boobu dinaa ko jàngale fii ci jàkka ji mu tudd sullamul wusul ila ilmil usul téere su ndaw la nii la toll ay way lañ ko def ñaar téeméeri bayit ak nangam téere bu ama ama am solo ba jéggi dayoo daanaka addina bi yépp dañ ko fay jàng fi mu nekk nii fu ay julit nekk rek ci addina bi fi ne ñu ngi ko fay jàng ngir am solo gi mu amee solo ki ko taalif yàggut barki démb boo njaaree ay côté 1922 kon kooku yàggut xaafis al xakam yi dafa wax wax ju am solo bi mu agsee ci buntu bokkaale yàlla dani wa shirku nawaani fa shirkun akbaru bihi xuluudu naari id la yugfaru nee na bokkaale yàlla de ñaari xaaj la am na bu mag am na bu ndaw waaye bu mag ba moom yëgal ni boo ca boo ca tàppee boo duggee sa war a doo génn mbokk jullit sawaraak ni mu mittee ak ku ko xam ak ku- ngëb ngëb aw sawara wala dëgg aw xal wala fi dañu ku tëb dal ci xal dese nga weneen tëbin parce que li nga tëb dafa metti xoolal sawara sun borom sa yonent yàlla bi nee na sawara dañ koo xaaj juróom ñaar fukki xaaj yu manqué benn juróom ñaar fukki xaaj yu manqué benn wàcce ko ci kaw suuf seeral ko ba mu sedd mu doog a mel nii mu mel nii moo tax yàlla mu ni afara aytumu naara allati tuuruun moo yéen yéen a ngi seetlu sawara si ngeen di lukkateeg di ko taaleeg di almet ak di briquet ak di gaz yéen a ngi koy seetlu a antum anshatum shajarataha ndax garab ga nga xam ne ca cosaan fa la sawara bàyyi ko yéen a ko sos déedéet am naxnu munshi'uun ñu ni déedéet muy naxnu ja'alnaha tazkira yàlla mu ni sawara si maa ko def ngir muy fàttali sawara sële boo kosee bire almet rek mu falaas rek dal ci sa yaram mu ni- mu metti mu ni sa xel dem ci sawara su mag sax mbokk julit yi sawara ci jëmmi boppam métit woo mu métti lu waay mën a mel te bokkaale yàlla def nga ko da nga fa tàbbi est ce que xam nga ni même buñ la bëggee ramm kenn du la mën a ramm yàlla mu ni fama tanfa'uhum shafaatu shafi'in même bokkaalekat yàlla yi ku la bëgg a ramm doo leen mën a ramm waxoon daa leen ci waa àjjana dañuy toog ba mu yàgg sunu borom mu ni leen waaw yéen waa àjjana fi ne yëf yi mat naa ñu ne ah sunu borom am da lu des de sunu borom ne lu des ñu ne ñun kat dañoo am ñun dëkkandooloon ci àddina ñu xamante am jàmm te diw sàngam de sama xarit doon waaye gisuma ko fii ma nga sawara sunu borom ni demal nga xool bu fekkee bokkaale amul ci ay jëfam séppil génne allahu akbar nit day toog ba mu yàgg rek ñu xool waaw diw mi ndeke génne nañ ko tàbbal àjjana mu ni waaw ana diw ñu ni diw daal benn dëkkandoom benn xaritam moo xam nit ku baax la moo xam borom xam-xam la moo xam nangam moom daal moo ko sembi fii léegi yóbbu lu mu def moom daal bi ñu xoolee ay jëfam bokkaale bokku ci moo tax kee daal di koy ramm demal ci suuratu safat wala su shuara moo tax sunu borom fa lay wax gaa yi naan fama lana min shafi'in ay waay waay tey ñun duñu am ko ñu mën a ramm waay wala sadiqin xamim ñun tey jii duñu am xarit boo xamante ni yëg-yëgam dana yëg ni sax maa ngi moom a nekkoon fi mu daan may dimbali luñ cay teg bu ñu amoon ab occasion ba delluwaat àddina liñ doon def lépp danañ ko soppi am nga occasion yaa ngi nii ndax faatoogoo kon mbokk jullit yi bokkaale yàlla noonu la mel mu ni bokkaale mooy nit ki jaa jël kudul sun boroom def ko ndend yàlla wala moroomam wala luñ ni yàllaa ko moom nga moomale ko ko wala sañ-sañab suñu borom nga jox ko ko wala luñ naan lii kat yàlla rek ko mën nga di bay jiw mën na ko déedéet lépp luñ naan yàlla moo ko man ak moo ko moom moo ko sañ ak moo ko am nit ki lu mu baax baax dafa am fu mbaaxam mën a yem malaaka yi sax am na fu ñu yem de ba jibril gungee yonent bi ba ca kaw dañu ko wa ma minna illa lahu maqaamun maalum ca suratu safaat man kat fii laa mën a yem kat yonent bi mu ne ko ah lu tax dooma gunge ba ma ak suñu borom mu ne ko ma minna illa lahu maqaamun maalum ku ne da nga am place boo war a yem suñu borom ñuqi muhammad mu gën a yéeg ca kaw suma danaa fatadalla fa kaana qaaba awadana ba mu yegg fa mu yegg kon mbokk jullit yi mooy nit ki su jaaxlee xelam dem ci ab nit xarama dem ci diw xarama dem ci nangam diw kay moom nangam diw mooy faj aajo yi loolu ëpp naa wax kuy faj aajo amut suñu borom rek kay faj aajo wallahi fajkatu aajo suñu borom la kese moom rek moo yor kun fa yakun amul keneen ku ko yore ak kuñ ko mën a waxal ku ne bu fekkee kookaa ko waxal boppam dafa juum su fekkee dañ ko ko waxal dañ koo tooñ waaye kaw suuf amul ku ci am kun fa yakun déedéet yonente bi sax amu ko sallallahu alayhi wa sallam loolu njuumte la léeg-léeg dañuy faral di ëppal te duñ ko yëg te ëppal baaxul ëppal mooy nga solal nit ki mbub mu ko ëpp te mbub mu ëpp boo ko solalee dootul rafetati kon dañuy nit jël yëf yi di kenn ku nekk ñu joxal la nga tollool dëgg la nit ku baax am na borom xam-xam am na nitu yàlla am na nit ku sell am na jaamukatu yàlla am na ku yàlla defal ay may am na yooyu kenn weddiwu ko waaye nag yi yàlla moom dees na ko sàmm ba kenn du ko jox ko dul suñu borom yaakaar dimbali ko xittiliku muslu mooy kun fayakun mooy dogal mooy taw mooy xittili mo- léeg-léeg nga dégg sax ko ne diwu moom jaam ñi xoolal loolu jaam yi ba mu fiy nekk diw moomu nekk gu fi ak lu mu baax baax jaam yi yàlla moo leen moom subhanahu wa taala même bu moomee jaam nit ñi dañuy wax loo xamante ni war na ñoo xam ne sax xel danguwu ko ndax bu moomee jaam yii moomu jaam yee ndax am na ñoo xam ne toppuñu kooka keneen lañ topp kon jaam yi kenn leen moom muy suñu borom yooyu ay xeeti njuumte la yu ëpp yoo xam ne ku koy wax na ko bàyyi te nga xam ne li ngay wax musiba la wala boog mbir moo xam ne yàlla rek moo ko man nga di ko diis doomu aadama ah man ka dama am problème mu 1000 francs dimbali ma ci loolu taxul ñuy wax ndimbal parce que loolu nit mën na ko li ñuy wax kay ah man kat sama soxna si kat ab diire ngi nii ba ma ko takkee léegi man dafa kaat ak nangam amul doom ñëw fekk borom bàmmeel bi naa ko dama bëgg nga xettali ma ci ci ci ci ci loolu musiba juree la kooku mënul dara in tad'uuhum gis nga boo ko wooyee la yasma'u du'aakum moo tax alquran mbokk yi ñàkk ko jàng dafa wóorut fi ne lii lépp suñu borom wax na ko in tad'uukum boo leen wooyee la yasma'u du'aakum duñ la dégg walaw sami'u même buñ la déggee sax mastajaabu lakum duñ la wuyu wa yawmal qiyamati bu ngeen ñëwee yawmal qiyam nag yakfuruuna bi shirkikum li ngeen leen doon jiiñ dañ koy weddi ne duma ko nga ni ha mu ne wala yunabbi'uka mithlu xabir alaxira kay la fa xew kenn du la ko nettali ba mel ni suñ borom lim lay wax wala boog ñu jël kooku mbir yi nga xamante ni mbiri kumpa la ñu jàpp ne moom moom xam na ko ba ca des nag mooy bokkaale yàlla bu ndaw te ngistal moo ci jiitu ngistal mooy ngay def wala ngay wax ngir nit ñi gis la waaye yàlla taxul nee na nag bokk na ci mooy ngay giñ ci ku dul suñ borom mbokk julit yi giñ ci yàlla lañ koy def kenn du giñ ci yonent bi laax salaa salaam yaakaar naa ne jullit ñi ñëpp dëppoo nañ ci ni personnalité yëpp yonent bi ci gën a fort foofu moom alhamdulilah defe naa dëppoo nañ ci waaye yonent bi kenn du giñ ci moom yonent bi kenn du giñ ci moom dañu woon Omar Omar dañu giñ naa ci sama giñ ak bàyyi mu ne ko déedéet man kaana xaalifan fal yaxlif bilaa aw yasmut kuy giñ giñal ci yàlla giñ naa ci sëñ diw ak giñ naa ci bàyyi diw ak giñ naa ci nangam nangam ak giñ naa ci ci ci ci sama giñ ak bàyyi ak giñ naa yooyu yépp yonent bi da koy tere sallallahu alayhi wa sallam parce que giñ mooy lan su ma nee lii portable la fekk nit ñi gëmuñ ni portable la amaana xëy na am na lu tax gëmuñu ko pour mu mën a justifier ni lii portable la faaw ma indi benn affaire bu rëy boo xam ne su ma ko indi moom lii moo gën a rëy luy rëy pour nga nangu ni lii portable la ma gestu xool xool gisuma ko gën a rëy yàlla ma ni billahi ngir nga xam ni diggante bi moom doxaluma fi kenn yàlla rek laa fi doxal place bii mbokk yi dafa foor yàlla rek lañ fa war di teg kon mbokk jullit ñu xam ni bokkaale yàlla ngoog ci xutba yii di ñëw insha allah ak yenn ci yi nga xam mooy nawaqidu tawxid yi ci kam soo amee pas-pas ba pare boo ko defee mën naa yàq sa pas-pas te loolu yàlla na suñu borom boo leen ci musal ñëpp mbooloo moomu nga xamante ni borom bi moom la boole ci asxaabul yamin nga xam ne ñooy tàbbi àjjana yàlla na suñu borom defal nu ko bu ñu génn àddina mukk nag nu nag sunuy bokk lu dul yàlla dimbale ñu bañ am qalbu salim qalbu set wicc nga xam ne jox na yàlla gëdd ba mu ko war a jox rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyir lana min amrina rashada rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilayka almasir rabbana la taj'alna fitnatan lilqawmi adh-dhalimin wa najjina birahmatika min alqawmi alkafirin اللهم انا نعوذ بك ان نشرك بك ونحن نعلم ونستغفرك لما لا نعلم اللهم استرنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض عليك اللهم انا نعوذ بك من الهم والغم والعجز والكسل ونعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد